li ma bëgg a wax lu gën a am solo sax lii mooy suñu diine lislaam ci Sénégal wax bu ñuy wax Yoof na dëkk maam bi maamu bu ñuy wax Touba na dëkk suñ Touba Tiwaawan ni na Alaaji Malick ah, Cheikh Omarou Fouti wax ngeen ko ak geneen ak geneen muy lislaam boo xam ne lu muy dugg fii ci réew mi di ëpp na junni ak ak lu toll près de mille cent années yoo xam ne l'islam mu ngi ci biir Sénégal ñu koy doxal ci ni ñu koy doxal ba tey jii kon islam boobu war nañ ko ndax mooy l'islam bi ñu taamu mooy l'islam bi ñu xam te mooy l'islam bi ñu jig mooy ñu indi leneen di ko jàngal sénégalais su ci wàllu diine loolu yàgg na ko wax wax naa ko ci waaw wax ko feneen war ak nii ñu ko amee parce que li lii la ñu fi ñun si lislaam du tarixa yi du sëriñ si nekk suñuy wasila war leen fonk fonk li nga xam ne noonu la en tout suñu lislaam Sénégal taxaw parce que naa wax naan dañ lay jàngal noo koy noo koy toppee loolu daf ci am loo xam ne euh, yaakaar naa wàllu taalibe yi la ñoom ñooy sàmm ci euh, naa wàllu taalibe yi seen diine sàmm seen ngëm-ngëm li si des itam wàllu sëriñ si la ñoom it ñu sàmm li nga xam ne moom la leen yàlla dënk euh, ci di waxtaan ci njaboot parce que ci waxtaan la ak ci xam-xam euh, leneen li moom état bi ñu ma ko waxee rek ci wàllu woowu lépp lu fi indi ay xalaat yu bees yu ñu war a doxalee diine moom ñun dinañ jàmmal lool loolu ci wàllu état donc loolu nag di ngeen ni mu yàqee réew ñu wër yàq ko yàqet loolu dafa am taxawaay boo xam ne ñun duñ si mos a jógee incha allah.